waaw li ñu am ni lu rëy euh, li ñu doon xaar am na nii dañu fogoon nekk euh, stade yu mel nii mënuñu ko am Afrique waxuma sax Sénégal Afrique dañu naan mënuñu ko woon am euh, peuple Sénégal bi manko naan dañu bëgg ce a de meilleur li gën ci stade yi foog naa stade bi bi ñu am tey benn stade gënu ko Afrique te feneen kay la ñuy waxee dégg léegi président FIFA di naan stade boo xam ne mun nañ fi jouer match coupe du monde finale coupe du monde gëm naa ko gis naa ay stade yu bëri mais mësuma gis stade bu mel nii boo xam ne y a tout voilà da ngay dugg fii bëgg kontaan mooy fierté suñu suñu ndam la stade bi mais nag défi la boo xam ne dañ ko dënk dañ ko defar dënk ko peuple sénégal entretien bi ci population bi lay jóge du ko amul kenn ku war a topp ginnaaw euh, public bi di naan da war a da nga war a raxas fii fii nga war a jaar et cetera ku nekk bu jëlee stade bi moo moomal ko boppam mel ni këram gëm naa ne que euh, li ñu mën a am li ñuy xaar ci stade bi dinañ ko am loo xam ne lu ko gën lu ko ëpp parce que léegi dañu ambitieux nag de dañu doon nekk euh, premier Afrique ñu naan waa mais premier Afrique waaye euh, am ana ana kii ana lu koy euh, firndeel ñu gagné coupe d' léegi dañ ñaaw waaw léegi champion d' Afrique nan lay demee mais dañu dem coupe du monde bu ñu demee coupe du monde gën a ambitieux et cetera mais euh, ambition boobu nag xaar bu rëy boobu ñuy xaar ci équipe nationale peuple sénégalais bi yëpp moo koy moo koy bokk manko lu ñu mënti am ñu fexe ba mu nekk li gën ci Afrique ba ba mu li gën ci ci àdduna bi léegi suñu équipe nationale dix-huitième mondial la bokk nañu maanaam ci équipe national yi gën a xarañ yi gën a rëy ci ci bi mais dañ ko war a mérite équipe national supporter ci la équipe national euh, président de la république ci la président fédération ci la euh, balekat yi ci lañu équipe national national la ñu wax c'est toute la nation qui est li ñu dénk nii wax dëgg yàlla peuple sénégalais bi moo ci war a jàpp woon nañu que mérité nañ mën a nekk motivation pour équipe nationale bi nga xam ne itam fii lay joué pour mën a dem coupe baax parce que euh, mënoo am stade bi di def ay de de mauvais résultats stade bi mënul nekk ci pays bu ndaw stade bi mënul nekk stade équipe bu ndaw il faut que ñu xam ne ñun ñooy champion d'Afrique te champion d'Afrique bi du loo xam ne benn jour rek mu jeex déedéet champion d'Afrique loo xam ne dañ koy dañ koy togg euh, moom ko euh, tax ba mu sax ci suñu réew. ñu nekk réewu excellence avant da nga doon dem demi-finale ñu tàccu la nga dem euh, def quart de finale ñu ne ah bravo kat ñii kat góorgóorlu nañu dépassé nañu foofu ay egg nañu foo xam ne ku fi ñëw da nga war a tiit da nga fi dugg nga xam ne dugg naa ci stade équipe bu mag boobu lañ ko war a mérité nag.